waaw oh, tey nekk na journée bu gudd gudd parce que dañoo ñëw euh, rek euh, def visite de courtoisie ci préfet mu ànd ak ñun donc ci station bout de vidange bi bi nga xam ne dañ ko tëj depuis daaw ndax euh, nekkatul woon aux ñun ñun ñu taxaw ci lépp li nga xam ni dak ci doon gàllankoor mu mën a fonctionner ñu sant suñuy service ñu régle ko ba li ci ëpp réglé nañ ko ba tey station bi fonctionnel na Euh, pompe bees bi nga xam ni moo doon mooy tax ba ndox mi dootul mën a roogalaat installé nañ ko euh, bâche bâche bi nga xam ni donc moo war a loger boobu boobu pompe donc sori nañ ci liggéey bi wante du tere donc mu mën a fonctionner euh, donc ndox mu fa naree tuuru fi ñu toll donc mën nañ ko as pompe ko yóbbu ko ci station bi nekk Touba donc loolu yaakaar nañu avec toutes ces mesures ak koloor bi nga xam ni wut nañ ko ci quantité bu doy dañ ko ci ONAS ngir buñ koy exploité jàpp nañ ni buñ ci àggee incha allah donc euh, station bi dinañ ko mën a ubbiwaat ngir askanu askanu Touba ak askanu Mbacke man koo jaaree jariñu ci màggal gi eh, jóge nañ fa tamit dem seet seet liggéey bi nga xam ni donc ñu ngi koy def ci fii jàkkaarloo ak mairie bi ñëpp xam nañ foofu ni muy indee jafe-jafe ci circulation bi parce que benn benn yoon bi dafa fat wante alhamdulilah liggéey bi nga xam ne ña ngi ko fa doon def yàlla def na avancé na ba tey donc euh, unité de pompe dispositif de pompage bañ fa waroon a léegi fonctionnel na conduite de refoulement bi sur un kilomètre quatre cent installé nañ ko ba pare ba tey si tey bu tawee mën nañoo as as ndox mi pomper ko donc yóbbu ko ci réseau ONAS bi nga xam ne mu ngi nekk a un kilomètre de mi loolu sant yàlla mais euh, foofu tamit bâche de pompage bi donc entreprise bi mu ngi nekk di ko defar et jàpp nañu incha allah donc euh, balaa le 15 donc boobu liggéey moom dina pare totalement bi ñu fa jógee jaar nañ ci bassin wu euh, ci bassin wu Kër Niang parce que kër ngi gis ngeen donc ni ni capacité de pompage faible la woon ci taw bee passé ndax dafa tolloon rek ci deux mille huit cent mètres cube heure donc ñu ñu am yéene delloowaat ko ba six mille mètres cube heure gis nañu tey ñetti pompe ñetti moto pompe donc euh, installé nañ ko ba capacité bi dem na ba cinq mille deux cent mètres cube heure ay bori dix huit heures bañ balaa ñu fay jóge donc la moto pompe bi mujj bi donc egsi pour ñu war ko monter tey wala wala suba pour mën a recouvrer suñu capacité de six mille mètres cubes heure ah bi ñu fa jógee ñu jaar ci quartier Ngiraneen ñi ngi koy fàttaliku dafa nekkoon quartier boo xam ni amoon na ay jafe-jafe euh, yu tar ci euh, ci taw bee ñu weesu ba amu amoon ay inondation yu méttee métti donc ñu fa doon jaar di masawu di masawu askan wi di leen di leen masawu mais tamit di leen jàppale donc ci wàllu carburant pour donc ñoom ñu mën a àggale donc liggéey bi nga xam ni tàmbali woon nañ ko ah jóge nañ ci loolu tamit wax fa dëgg yàlla donc euh, gis nañ taxawaayu ndaw yi sargal nañ leen félicité nañ leen ci turu donc gouvernement bi ci turu euh, président de la république Euh, premier ministre bi nga xam ni dafa sant ndaw yi vraiment ñu def seen loxo ci lépp li nga xam ni dafa jëm ci wàllu assainissement. alors bi ñu jógee ci loolu tamit donc ñu dem ci euh, fu ñuy wax ngelum ngelum tamit nekk euh, fi nga xam ne ndox mi bu jógee Kër ñaŋ bu bu jógee Ndaamaatu wala bu jógee Ngiraan nen ngelumu lay dem kon ngelumu dañ dañoo war a yokk capacité. de de décharge euh, ci bassin bi nekk foofu foofu nag bi ñu fa àggee euh, dañ doon inauguré sax dispositif bi nga xam ni mooy décharger réseau bi tey la tàmbale fonctionner muy benn pompe mille cinq cent mètres cube heure donc war nañ cee yokk beneen pompe trois cent euh, trois cent cinquante mètres cube heure bu ko defee réseau bi dina gaaw di décharger ba ndox mi nga xam ni donc dafa doon refouler ngelamu donc man di teel a man am place bu mu duggee ci biir réseau bi donc ba euh, inondation yi doon nekk ci ci ngelamu daal di ci ci ngiraaneen daal di wàññeeku donc euh, ñu ngelamu ñu fay def tamit beneen liggéey bu am solo muy di ñu fay teg benn conduite DN 650 boo xam ni daanako day doubler day plus ko doubler sax capacité DN 400 ba fa nekkoon ngir ji teel faa gaaw faa jóge ndox mi yóbbu ko ci euh, bassin wu euh, Daaru Rahman kooku nag liggéey la bu ñu ñor lool moo tax ba vraiment ñi ngi félicité équipe bi ndax euh, jéego yi nga xam ni yu am solo ñi ngi ko ci def ndax euh, yooyu jéego moo tax ba 430 mètres la ñuy posé chaque jour boobu rythme nag buñ ko continuer fii ak le 13 juillet allah conduite boobu dina pare bañ man koo mettre en service bu ko defee donc euh, inondation yi am Ndaamaatu ak inondation yi doon am euh, Ngelamu donc dina ñu yër am ngiraaneen dina wàññeeku bu baax a baax donc euh, biñ fa jógee xoolaat nañ état de fonctionnement wu bassin wu Poufdi ak bassin wu euh, Darou Rahman mais surtout dem nañ seeti beneen bassin bu bees boo xam ni donc euh, ONAS donc mi ngi koy def à côté di bassin de Darou Rahman ñu koy woowee bassin d'écrêtage bu ñuy permettre que su balaa bassin wu euh, Daaru Rahman di fees donc ñu mën a ngàcc ndox mi pomper ko yóbbu ko yóbbu ko ci yooyu bassin yi nga xam ne capacité yu rëy rëy la parce que loolu mooy tax chaque fois réseau bi di mën a décharger ah bañ fa jógee nag lañ egsi fii ci euh, ci Guédé Bousso donc donc bi egsee ci village yu Touba Guédé tamit doon masawu askan wi parce que ñoom tamit comme waa Ngiraneen taw bee passé amoon nañ ay jafe-jafe yu taratar taratar vraiment ñu dégg seen appel nag bi nga xam ni dañ ko def ci réseaux sociaux yi ci ñàkk ay moyens yi nga xam ni donc moom la ñu moom la ñu mën a drainer ndox mi moo tax ONAS donc ñëw masawu leen mais surtout indil leen dimbal ci wàllu li nga xam ni donc moom mooy leen di dimbali ci li mën a jëlee ndox mi donc muy ñetti moto pompe muy équipement de protection individuelle yoo xam ne kuy dugg ci ndox mi da ngaa war a aar sa bopp muy également donc euh, ay flexible ñetti trois fois cinq cent mètres de flexible yoo xam ne dina mën a ne ndox mi donc ba mën a àgg ci réseau ONAS bi nekk ci bi nekk ci pegg bi donc euh, buñ fi jógee nag ah dinañ tëj journée bi fële ci bureau ONAS ndax dañoo euh, jël décision pour renforcer ONAS Touba Mbacké def ko érigé ko en un service autonome service autonome boobu tamit nag ñu nommé ci tey benn chef de service nommé fa ay techniciens yoo xam ne ñoo koy jàppale yokk tamit matériel bi nga xam ni donc moom la ONAS Touba Mbacké yor ba li nga xam ne daal askan wi mu ngi koy xaar ci ONAS ci wàllu saytu seen euh, assainissement ONAS man ko matale ba mu mat sëkk